Madame le ministre, chers collaborateurs des ministres, chers collègues, je vous salue. Euh, Madame le ministre euh, maa ngi lay nuyu euh, bi ma bootee ci ginnaaw samay loxo jëm ci Présidio bi rek ku ne xam na ni kër sëñ Abdou laa dëkk du ma gërëm ku ma defalul dara loolu leer na yàlla yàlla fay la yàlla yàlla yàggal la yàlla yàlla taxawal la defaloo ma ko man waaye fa ma dëkk di sama dëkk dem nga fa suqali jigéen ñi jàppale leen bañu taxaw te kaw la mënoon nga leen a fàtte waaye nag foofee nga dëkk te fa ngay sëy yaa ngi def yaa ngi koy defee ni mu waree te yaa ngi leen di jàppale yóbbante na me muy sama askan di jëmatil njukkeeg kajoor ak farboot ak ndéeg ak foo bëgg a dégg ñépp a ngi lay sant madame la ministre ñëw naa dikkati naa waxati naa nañ waxtaane àdduna madame la ministre dégg naa léegi samay préoccupation ci ginnaaw raay jël nga ko ñaari yoon defe naa le nom de ginnaaw raay a retenti mille fois ci commission yi ci sama gémmiñ donc ginnaaw raay ngi ñi taxaw di wax ni jërëjëf ci jël bi nga leen jël en considération loo fa def doyul foofa mooy précarité buy taxaw manam liñ doon wax naan man euh, euh, social la ambulante waye fofa ginaaw raay précarité buy taxaw la social ambulante lañ lo fa def rek doyul répondre woon nga ma ci sama requête mais wax deug yalla madame le ministre damay wax toujours ni ce budget du doy nañu xamné comme ku yokku ra dolli ñeex yow nan la yokal rek ngay defar jigen ñi madame le ministre wax fa deug yalla dama am ñaari préoccupation il faut que madame le ministre ngay madame le ministre ngay madame le ministre ngay une madame le ministre voteel la benn loi pour retrait des enfants dans la rue waaw kay nañ madame le ministre lan mo waral ñu bëgg di liggéeyloo xale yi bañu egg ci ñun di ñu madame le ministre suma waxé lolu damay daw ci li dans ci sama kaw la classe politique dans le département de Pékin madame le ministre xalé bu am 16 ans le chauffeur jox volant il oto mu jël ko dawal ko wuti petite soeur ray ko 42 ans madame le ministre retire tes enfants dans la rue que la wara a madame le ministre pékin yépp amu leen naqari tay le département de Pékin lañu la classe politique am nañ lu leen naqari ndax ay aw mi ñu ñak te buñ ko doon joy ba doon du delusi une fédératrice une grande dame une personne bo xamantene daw na ci ginnaaw ma président Macky Sall ba jéxal tak xalé bu am 6 ans 16 ans ray ko kenn duko tej madame le ministre kenn duko tej parce que dañ naan mineur la juróom benn weer bu passé ñu ne kee moo ya yaa njaay ñeenti xale yi madame le ministre est ce que duñu xol nan lañuy def ba garage yi nga xamante ne ku ci dawal ba pare seet xale bu am 16 ans jël ko jox ko sa volant oto mu daw rey nit te du mujj fenn madame la ministre nous sommes écœurés madame la ministre ñu xool jeex na takk ñàkk nañ lu dootul amati mais madame la ministre wóor na yàlla ak yonent bi loo ci def doyul xale bu ñuy dawal la oto ponkalum jëm ñu jox la permis loolu dama ci rappeler ki nga xamante ne moom mooy ministre du transport mu jël décision ferme ci retirer euh, permis wu ki nga xamante ne moo dawal oto boobu tey madame le damay wax ne damay dellu siwaat ci yow rek waxoon naa ko keroog ci benn séminaire bu ñu boole muy genre genre nag gis nañ ni amna solo lol ci sa budget mais boko ko bañu gën ko xam mom mo gën ndax suñu réalité yi nga xamante mom lañu am ci suñu Sénégal té duñu ko wacc donc madame la ministre moi je pense que euh, lol dal amna ci lo xamante ne mënuma ko woon wax tay aw won sax envie wax mais li daf ma nakari ndax kii ko def ci sa département la bok madame la ministre je vous remercie merci chers collègues la parole à Mariam Sodendiaï et notre collègue.